ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di delluwaat ci tafsir bi ñu baaxoo def ci waxtu yi seen mbokk seen xarit seen taalibe Oumar Diallo di leen ko defal fii ci Ankapa ñu fas yéene nag delluwaat ci suuratul baqar xam nga suuratul baqara dafa gudd bokk na ci wala mom ci bopam mo upp ci sar yi mo ci gëna a gudd tabarakallahu ñi ngi waxoon nekkon ci wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turjaun yàlla moy ngëb yaqbidu moy ngëb moy ngëbal wërsëg ku mu neex mu bañ ko yaatalal mu xatalal ko wërsëg tuuti lay am wa yabsutu mooy tàllal itam wërsëg tàllalal ko ku ko neex dafay am ba yàq yaakaar ne moom moo ko defal boppam wala njàngam moo ko ko may walla mën a liggéeyam moo ko ko may déedéet yàlla mooy yàlla mooy doxalee rek dafa am ñoo xam ne da leen xatalal wërsëg moo gën ci ñoom waaye am na ñoo xam ne di leen tàllal wërsëg moo gën ci ñoom wa ilayhi ci yàlla turjauna la ñuy delloo fil axirati fa yujazikum bi amalikum yàlla fay leen seen jëf yépp ki néew li ak ki bare le yépp yàlla dina ko regle dërëm bu ci nekk yàlla dina la laaj noo ko amee bi nga ko amee ba pare foo ko dugal ndax lu dagan la walla lu araam la kooku mooy régler bu mag bi kon ñiy wax alal dañ koy walla xaalis dañ koy dañ koy lijjanti hmm? kenn di ko liggéey dañ koy lijjanti wóorul lijjanti wóorul hmm. yàlla ne alam tara ndax gisoo walla xamal walla yëgal ilal ilal mala i jëm ci menn mboolo mboolo moom nag min bani israil dafa tukkee ci bani israil min baadi mawti Muusa ginnaaw bi Muusa génne àddina ñu toog bi diir bu yàgg yonent ñëwul ñu ñëw nag maa ngi lay nettali seen xissa id qaalu li nabiyin lahum bi ñu ñëwee wax seen yonent bi leen yàlla yónnee woon ginnaaw bi Muusa génne àddina yonent bi nag mu ngi tuddoon Samwil yonent bi mu ngi tuddoon Samwil ñu ne yonent bi fekk benn buur bu ñu wax jaaluuta sonal na leen topp leen dire ñoom bani Israël sonal leen lool te kooku yéeféer la ñu ñëw ci yonent yàlla Samwil ne ko ñaanal ñu su sa borom mu yebal ñu benn mu tànnal ñu benn buur boo xam ne dañuy ànd ak moom xeex ak jaaluut loolu lañu bëgg moo tax mu ne is bi ñuy waxee bi nabiyin lahum ñeel seen yonent boobu ñu ne ko ibas lana na taxawal nu malikan buur boo xam ne nu qaatil dañuy xeex ma ahu ànd ak moom fi sabilillahi ci yoonu yàlla mu ñu def jihaad qaala nabiyu lahum seen yonent boobu samwil ne leen hal asiitum ndax le yéen in kutiba suñu farataale aleykum ci yéen alkit qitaalu guerre an laa tuqaatilu ragal ne suñu fe euh, farataale guerre ci yéen an laa tuqaatilu du ngeen xeex damay ragal ñu farata ñu digal leen ngeen xeex ba pare ngeen dellu ginnaaw qaalu ñu daal wax ne wa maa lana an laa nuqaatil fi pour quoi du ñu xeex fi sabilillah ci yoonu yàlla wa qad di min na ñun yéeféer ñi génne nañu suñu kër yi daf nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu suñu suñu kër yi wa abnaa ina jàpp nañu suñu doom yi rey leen dëng lu leen neex ñu def ko ci ñun mooy buur boobu jaalut te la maaniu lana amul kenn koo xam ne daf ñuy défendre kon yàlla kay suñu yebale benn buur ñu jàkkaaroog jaalutu kon dinañ xeex ànd ak buur bi contre jaalut ah ñoom ñoo ko ñaan yàlla falamma ba bi nga xamee ne yàlla nag yebal na yónnee na dogal na alihim ci ñoom alqitaalu xeex tawallaw ñu daal di wane ginnaaw ñu daal di ragal ñoom bani israil te ñoom ñoo ko ñaanoon illaa qalilan ndere lu néew minhum ci ñoom wahum allazina abbaru annahar ñi nga xam ne bi ñuy dem ci guerre gi ñoom ñoo jéggi woon dex bi ma a taalut ànd ak buur bu ñu wax taalut kama sa yaati bi dina ñëw wallahu yàlla alimun aji xam la bi zaalimiina ci way tooñ yi fa yujaazihim dina leen fay yonent bi mooy Samwil ñaan na boroomam na leen tànnal benn buur qaal lahum daal di wax leen nabiyuhum seen yonent inna allaha yàlla kat istafa qad baasa qad baasa yónni na lakum ñee leen taaluuta buur bu ñu wax taaluuta malikan mu nekk seen buur bu leen fàtte ne buur bi nga xam ne yéeféer la di doon sonal bani israel moom mu ngi tudd jaaluuta du noonu léegi buur bi yàlla yónni léegi muy xeex ak taaluut kooku mu ngi tudd jaaluuta euh, taaluut kale jaaluuta la tudd kii taaluuta la tudd jullit bi taaluuta tudd yéeféer bi jaaluuta tudd xam seen tur yi dañoo dañoo xaw nuroo qaalu xam nga lu ñu mujjee wax am yakunu lahu l mulk alayna wa nahnu ahaqu bil mulki kooku nan lay nekkee buur suñu kaw nan lay faloo ci suñu kaw te ñun ñoo gën a yelloo nguur ñun ñooy dignitaires yi yàlla tànnul buur ci ñun di ko tànn ci benn tëgg boo xam ne dafa doon tëgg ci mbedd mi moom la yàlla di tànn ñun ñoo ko gën a yeyoo yeyoo ki nguur te te kat walam yuuta saatan minal maal te moom amul dara joxuñu ko alal amul alal amul dara kooku nañ lañ ko toppe dégg nga wax ji ala kulli xaal gis nga buur walla président lu mënti doon njiit lu mën a lu mot a moytu la parce que lépp loo xam ne nit ñi dañ koy xeebe heure bu nekkee buur rek defe ne mel na yàlla da koy jox pour mu mën su loolu amule dañ koy xeeb su dee fit yàlla da koy jox fit ju ko xëy ba lu ñu xam nu ñu koy wax personnalité yàlla da ko koy mujjee jox sinon da nga ko koy xeebe moo tax ñu ne taalutu munul nekk munul nekk munul falu suñ kaw amul dara amul dara mbaar la am fii ci mbedd mi di di di tëgg ay satala ak i e, sémmiñ ak yooyu ñu koy fay mu xëy rek nekk buur te ñun ñu ay dignitaire ñu am alal munul ne waaye nguur dafa am benn siddit boo xam ne nguur yàllaa ko moom te ku mu fe far rek dafay jël ci siddit boobu dafa mel ni dala koy roof soo ragaloon dinga ñeme soo amul woon doole di nga am doole su amul woon fit di nga am fit soo amul woon xel di nga di nga ko am sinon dañ lay yëpp te yàlla du ji maam Abdou Aziz radiyallahu anhu dafa doon dafa doon wax ne yàlla du jiital kenn du rëcci rocci loxoom ci moom yàlla du jiital kenn di rocci loxoom ci moom yàlla su jiitalee nit rek moom moo koy taawu waaye xeebee nañ ko ndax amul alal ah wala mu yutasaan minal maal waaw même suñu tànn fi maire wala lu mel noonu dañuy waaye kii nga xam ne amul sax liggéey chômeur la mënul nekk suñu meer wala mënul nekk lii parce que du ñu seet njàng mi duñu seet juddu gi déedéet dañuy seet rek amul ah alal bi rek lañu seen moo tax nag politiciens yëpp dañuy dem wuti wuti alal su dee dañ koy sàcc su dee ci comme soo amulee duñu la duñu la fal noo def rek moyen boobu boo def rek pour am da ko def waaw ñëw nag di joxe tànn biir di ñu lay tuddee ay làmb di la tuddee ngay génne parce que moo moo ko yor nañ jëw dem ci diw moo ko yor hmm? ki nga xamne dafa jub nak te yorul ñu ne ah moom way waaye kii dafa tekki way ki dafa mëna nek chef de quartier sax woon ay wa ñu dem kooku amul alal munul nek suñu bur walam yuta saatan min almal walam yuta saatan saatan min almal deng قال قال النبي له سين يونت بي نلن ان الله يلا اصطفاه تاننكو مو نيه لين مو نخدي لين يلا تاننكو عليكم سين كاو وزاده دولينكو نك ا partir d'aujourd'hui دولينكو في العلم تي خم خم والجسم نيت دا فا نيكون نيت كو خامني كو توتي لا وون ñu testé ko ba xam li yàlla wax ci moom am na léegi wallaahu yàlla yuuti dina jox mulkahu nguuram ga man yasha ku mu neex ala ku ko neex wallahu yàlla waasiun aju yaatu la fadlahu ngëneelam waaye alimun aji xam la bi man huwa ahluhu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dina dina leen ko jox wa daal di wax lahum ñeen leen nabiyuhum seen yonente boobu mu ngi tuddoon Samwiil lamma talabu minhu aayatan ala mulkihi bi ñu waxee yonente yàlla Samwiil soo bëggee ñu gëm la danga indi màndarga boo xam ne booy kéemtaan boo xam ne dana wone ne kii la yàlla tànn mu nekk buur yàlla nee na inna aayata mulkihi gis nga màndarga kéemtaan mulkihi nguuram an yaatikum dina leen dikkal ak taabuutu benn waxande dégg waxande dina toog ba mu yàgg rek am nga waxande comme genre valise yooyu bu jógee ci kaw asmaan ay malaaka yi ñoom ñoo koy indi ñoom ñoo koy taawut indi su ñëwee ba teg ko nag ñoom ñépp danañ ko mën a bëgg déplacé mënuñ ko moom dong moom mu ñëw déplacé ko kon xam nañu am na doo am na kattan li yàlla waxoon am na ñu toog ba mu yàgg rek ñu gis waxande jóge ci kaw waxande bi nag sunduuq kaana fii suwarul anbiya nee nañu waxande bi euh, photo yonent yi ma melokaan yonent yi seen statue walla seeni photo moo ci nekkoon yàlla moo ko wàcce ala wàcce woon ala aadam ci aadam dégg nga wastamarra ilayhim loolu nag di woy ci yonent yi ñu koy doonante dégg nga euh, fekk nañ ci itam kaala yonent yàlla Haaruna ak yonent yeetu yonent yàlla Muusa yooyu moo nekkoon ci waxande bi fii nekk na ci waxande bi sa sakiinatun ak dal li qulubikum ñeel seen xel parce que su waxane bi ñëwee ba ngeen gis ko seen xel dina dal ngeen xam ne kii yàllaa ko yónni waxane bi taxmiluhu ah fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun ak desit mimma ci la nga xam ne taraka bàyyi na ko Musa alu Musa alu musa ñooñu yonentu alu Musa wa Harun ak Harun waxoon naa ne yetu yonent yàlla Muusa ak dàll Haarun kii dàll dàll dàll Muusa ak yetam ak kaal Haarun dëng ak benn këll biñ doon def mànn ak salwa loolu moo ci nekk ak ay tojit àlluwa yonent yàlla Muusa yi taxmiluhu daal ko yenu nag almalaaykatu malaaka yi ñu koy ommat ba mu indi ko ci pénc mi mu teg ko ñu malaaka yi inna fi dalik nekk na ci lool nag kéemtaan boobu la aayatan tegtal la lakum ñeel leen ala mulkihi ci nguuru e, taalut in kuntum dem nekk ngeen muuminoonu di woy gëm fa xamalatu almalaaikatu bayna alsamaai wal ard wa hum yanzuruun malaaka yi ñu ngi ko yéenu diggante asmaan ak suuf ñuy xool ba ba ñu wàccee ko ci suuf wa wadaatuhu inda taalut fa aqra'u bi mulkihi wa tasaara'u wa tasaara'u wa tasaara'u ila aljihaad fa axtaara min shabaabihim sabiina alfan léegi nag waxande bi moo ngi ñëw malaak yaa ngi koy indi ba teg ko ci côté taalut boobu la ñu reconnaître nguuram nag ñu ànd ak moom ci jihaad faxtaara ma daldi di tànn min shababihim ci seen jeunes yi sabaina alfan juróom-ñaari fukki junni waxumbaane falamma fasala dee ñu war a génn falamma fasala bi ñu génnee falamma fasala bi nga xam ne génn na taaluuta ta eh, buur taaluuta bil junuudi ànd ak armée bi yépp ñuy dem nag min baytul muqaddas jóge nañu jérusalem wa kaana xarran shadidan wa talabu minhu alma te bi ñu génn foofu dafa am mar parce que dafa am àndoon ak tàngoor boo xam ne bu tar ñu sàkku nag ci eh, taaluutu ndox xaal mu ne leen inna allah yàlla de mubtalikum mu ngi leen di nattu bi naxarin ci benn dex ci suñu kanam suñu demee ci dex bi su ngeen gisee dex bi fa man shariba minhu dex bi nag wa huwa bayna al urdun wa falastin dex bi mu ngi nekkoon diggante Jordanie ak Palestine foofu la dex bi nekkoon ci borom borom tafsir bi noonu la su ngeen àggee ci dex bi fa man shariba minhu fa laysa minni képp koo xam ne mar jàpp na la ba nga naan ci dex bi bokkutoo ci ñi ànd ak man wa man lam yataamu képp koo xam ne mosu ci fa innahu minni illa lu dul nag man iqtaraf koo xam ne dafa ceñeer hmm, tànk ci loxam naan bi eh, tànk xurfatan bi yet yi muy dindi benn tànkit bi yet yi ci loxoom mu mos lu dul ko koo xam ne dafa tànk ci loxoom rek mos pour tooyal putam waaye ñi naan ba ba ñooñ pare naa ci ñoom duñu ànd fa sharibu bi ñu àggee ba foofu fa sharibu ñu ñoom ñu naan ñoom ñépp minhu ci dex bi illa qalilan du lu néew minhum ci ñoom bi ñu demee Euh, séeréer yépp naan maa doo séeréer yow séeréer yëpp naan ba des tukulóor yi mu ne ak kon waxoon naa leen ko kon dem leen dootu dootu leen mën a ànd ak man dégg nga falamma jaawazu bi nga xam ne weesu nañu dex bi huwa moom taaluut wa junu wallazina ak gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu ma ahu ànd ak moom xaalu ñu daal di wax ne ñoom ñi sa naanoon te ragal nañu la tiit nañu ba dellu ñu ne laa taaxata lanal yawma bi jaalut wa di ñun céetëtët amuñu kattan ci offenser wala défense défendre défendre ci jaalut jaalut dafa bari doole ji mu am nii ñun amuñu kattan ci dëkku ko ragal nañu ñu daw dellu jaaluta ak armée bi mu àndal ah amuñ kattan défendre suñu bopp walla daal seen kaw ala daal di wax allazina gaa yi nga xam ne yazunnuuna ñoom wóolu nañu annahum ñoom mulaaqullahi dinañ dajeek borom bi subhanahu wa taala ci bésëb dëkki ba xamul lu ñu wax ñoom mu ne kam min fiatin qalilatin kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi iznillah bari na kuréel bu ndaw mbooloo mu ndaw tampo ak mbooloo mu rëy mbooloo mu ndaw mi gañe mbooloo mu rëy mi loolu keroog feeñ na badar keroog xare badar yi ñaata lañu woon ñetti téeméer ak fukk ak ñett ah yéeféer yi junni lañu woon keroog yonent bi sallallahu alayhi bi mu jàppante ak ñoom gañe na leen ñi daw ñu rey ci ñoom soixante-dix personnes jàpp ci ñoom soixante-dix personnes te diggante trois cent treize ak mille kon kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi iznillah bari na mbooloo mu néew jàpp ma mbooloo mu mu bari dàq leen ba ñu daw wallaahu yàlla ma a mu ngi ànd ak asaabirin way muñ li su ngeen dëre te muñ yàlla ne ma sotle leen ndax ci way muñ yi rek laa ànd wala ma barasu li jaaluutu wa junuudi bi nga xamee ne jàkkaarloo nañu ak jaaluutu mu def face à face jaaluut wa junuudi qaalu ñu daldi wax ñu ñoom jullit yi rabbana suñu borom afriq na nga dotti alaynaa ci sabran muñ wa thabbit na nga saxal aqdaam naa suñu ndëggu wansur naa na nga muñ euh, nang ñu dimbali alal qawmi ci ñi ñoo xam ne alkaafirin way weddi mooy jaalut fa hazamuhum attaqué nañ leen wa bi iznillah ci ndigalal yàlla wa qatala daal di rey nag daawud ku ñuy wax da yonent yàlla daawud mooy bàyyi suleymaan boobu mu nekk ni nekk quatorze ans la ñu wax am na ñu wax dix-huit ans am te boobu sax motagul dem guerre dégg nga euh, yàlla dogal na yonent yàlla daawud baayam mu ngi amoon fukki doom ak ñett asxaruhum ki leen gënoon eh, nekk xale daawud yonent yàlla daawud kaana yar alxanam dafa moom dafa doon sàmm falamma xaraju lil qitaal bi ñu génne nag di xeexi mar mu mar daal di romb daawud yonent yàlla daawud bi xajarin ci xeer ci àll ba dégg nga fa naa daahu xeer yi woo ko yaa daawud yow daamul ihmil ni yël fa indi xajaru xaaruun man may xeeru yonent yàlla xaaruun su ma marra bi aaxar mu rombaat beneen xeer xeer bi ne ko ihmil ni fa indi xajaru muusa man mooy man maay xeeru yonent yàlla muusa mu jël ko def ko ci gafakam mu rombaat beneen fa qaala ihmil ni انا حجر الذي تقتل به جالوت من ماي خير بيغا خا خني غاي ري جالوت مو جيل لي نك نيوم ييب مو داف كو سي ا آه، غفا ووضع الثلاثه في خلابه ييب مو داف كو سي بن بن بن موس فلما آه، تصافو bi nga xamee ne nag jàkkaarloo nañ lil qitaali naada luutun kullu man yaqtulu jaaluut mu ne luut euh, taaluut daal di taaluut woote képp koo xam ne rey na rey na buur buur buur yéeféri dinaa ko may sama doom bu jigéen buur bi ma wax loolu de te naa ko sedd ci sama nguur dégg ah, yàlla dogal nag ci gàttal yonent yàlla daawud mu nekk xale boobu la ñëw sànni da jaalut xeer xeer yi daldi ko rey bu ñu rey nag mu ñibbi mu ànd ak taaluuta ba taaluuta génn àddina mu jëlaat nguur gi jëlaat nubu jëlaat nguur gi yàlla nome ko yonent mu da boole ñaar nguur gi ak nubuwa gi muy àttee nag moom moo jur yonent yàlla suleymaan suleymaan itam doon na nubuwa ci moom doon nguur ci moom te nguur yonent yàlla suleymaan ku nekk dégg na ko kon yàlla dogal na daawud rey na jaaluut wa aataahu llahu yàlla jox na ko almulka nguur fi bani israil ci bani israil wal xikmata mu boole ko ak nubuwa baada mawti samwil ginnaaw su samwil dee wa taaluuta taaluuta dee na mu boole ñaar yépp téye ko wa allamahu yàlla xamal na ko bi ma yashaau lu mu soob dëng ka sanati duruux moom moo njëkk liggéey li ñuy wax euh, gilet gilet gilet gilet bal moom moo ko njëkk liggéey moom yonent yàlla daawud wa mantiq tayr moom moo njëkk xam li picc yi njanaaw yi di sab njanaaw bu sab yonent yàlla daawud xam na ko su ko defee loolu itam suleymaan ibnu daawud doon na ko ci moom yaa ayyuhan naml udxulu masakinakum لا يحطمنكم سليمان سليمان وجنوده سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها نون في سورة النمل كون موم موكو دون تي يونت يالا داوود يالا ني الله دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض سدول وون يالا موم موي جيني موم موي جينيال الناس نيت baaduhum lenn ci ñoom li baad ñenn ñi kon la fasatil ardu day toog ba mu yàgg rek benn xeet bew dal ci beneen xeet di leen toroxal di leen torturer di leen mal maltraité ba mu yëg yàgg rek yàlla ñëw intervenir yàlla na su dul man maay intervenir toujours kon de suuf si dina yàqu gis ñoo waa bani Israël sibir biir nañ ko yàlla yebal na ci ñoom Zulqarnayn rey leen ba ñu jeex ba ñu des tuuti ñu jébbiwaat mu yebal ci ñoom ku ñu wa taaluut du noonu mu reyaat leen ba ñu des tuuti ñu commencé ñu xeet mu mu doy ñu doy waar nag bani israel yi juif yi ñu toogaat ba sëqaat bariwaat yàlla yobal ci ñoom al askandari mooy ma askan bi waxoon naa ko waaye ma yobal ci euh, buxtu nasar yebal na ko ci ñoom itam mu dumoole waat leen ba ñu jeex dese tuuti ñu jébbi waat ba bari waat commencé ci seen ñaawteef yi ak seen mbon gi yàlla yebal ci ñoom itam ki ñuy wax Hitler ah yebal ci ñoom Hitler bu muy bu mujj bi rek jeexal leen mu ne fu ñu gis juif rek nañ ko rey balaa ñu ci génn xaw nañu dee kon lawlaa difaa ullahi nnaas baaduhum li bi baadin لفسطت الأرض ولكن الله ولكن الله ولكن اللي الله يالله ذو فضل موي بروم غنل على العالمين تي مبند في تلك يوي آية نك آية الله موي كيمتان يالله نتلوها نكو جانغت عليك تي يو محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تي دغ وانك يو لمن المرسلين والله بوك نغا تي نيما يوني كون ñu teg fi suñu baaraam ñaan yàlla yàlla def ci ñun dégg ak topp ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala biñ ko tàmbalee ba léegi yàlla may ñu tawfiq ak tay sir ñu continuer darsu yi amul gàllankoor ba léegi euh, di sant nag ñi ñu doon déglu ñi doon seetaan ñi doon woote fa tabaraka allah ñu ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal waa télé bi itam fii fépp foo xam ne bëgg nañ fa àgg yàlla na leen fa yàlla àggale yàlla nañu yàlla may ñu am am rajo lépp lu télé yépp am yàlla na ngeen ko am bi jaay Seydou sallallahu wax naa leen ñeen yéen a remplacé ñi doon ñëw ci tafsir bi tafsir bi dañoo baaxu koor gu nekk ñu koy def feefi waaye fii dafa doon am ay nit fees del ñin ñi di seetaan tafsir yalla dogal coronavirus bi dugg ci rew yépp ba jokk yi ak juma yi ñu tejj ko kenn sañatu fa def loolu ndax bañ bañ rek nit ñi dajolo télé bi nak ñew jël ko ba pare nga toog jox la ko nga tok sa sal do tok sa neeg do sa ruq di ko ning ko ton kon amuñu seen pay yalla na leen yalla fay di see sant nag waa dëkk bi di sant waa aan yépp fa tabaarakallaahu ñiñ ci xam ak ñiñ ci xamul ak ñi nga xam ne dañuy jàpp télé bi di di ñu seetaan di seetaan activité yu nekk ci euh, télé bi yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla euh, fa tabaarakallaahu di baalu àq ñépp nag di baal àq ñépp di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla na nangul nangul suñu koor suñu jaamu yàlla yépp yàlla na ko yàlla nangu laylatul qadr bi nga xam ne paase nañ ko barke démb ak démb yàlla nañu yàlla may barke laylatul qadr ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaanoon nañ ci su ko defee ah ñu ñaan yàlla tam déwén mu fekk mu gën a amélioré su fekkee ne aajo na ko ñu ñu delluwaat ci rek incha allah ñu ngi ci seen disposition lu ngeen bëgg rek ay waxtaan lu ngeen bëgg su ngeen ki su ngeen ñu ko sollicité incha allah ñun ñoo far loolu li ñuy wax ñoo far fa tabarakallah ñun ñoo far bii mooy suñu télé <laughs> aan mooy suñu télé <laughs> su ko defee nag ah di sant ñëpp rek di leen di leen gërëm di gërëm bunaam bunaam Jóob njoobeen bi waa ji nee nag ceddo nga ah, ak <laughs> Aliou Sow ak ñi ñu àndal ñëpp fa tabarakallah ah, ami Cissé ak ñu ñu ànd ay seen collaborateurs yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ñaan ah waa <laughs> ngaari njar meew nee nañ ngaari yéhi Cissé yéhi ngaari yéhi xam nga la xis boobu hmm, ñu ne Cissé yéhi ngaari yéhi ñu ne Cissé Cissé bi dafa ñëwoon gane si ci dëkk bi léegi nag dañuy yow yeewoon foofu ngaari ngaari ma yëkk moom mu nekk gan ci dëkk bi ñu dalal ko ba fajar rek Cissé dem ñu ñëw fekk fi yeewoon ngaari bi fekkuñu fa ngaari léegi ñu ne Cissé dem na ngaari dem na voilà noonu laa dégg de wàddeen yi ak ñeneen ñi ak yooyu ñu di ko di ko wax <laughs> kon su ko defee rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ñaan yàlla yàlla may ñu fekkee déwén yu bare bare bare coronavirus bii nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jële fi ñëw na tiital ñu jaxase ñu mais borom borom xam-xam yi sax ñu waroon utiliser seen xam-xam dañoo jaxasoo ba nga xam ne dañoo féewal jàngalekat alquran yi mais man am naa xalaat yi ñuy jàngale alquran man jàngalekat alquran dama yor daara mais barke de maa ngi dégg déglu suñu suñu suñu mu whatsapp atu dakar lijtihaad di l'ittihaad ma dégg ji benn jàngalekat ne waxoon naa leen ko depuis njalbeen ne woon naa leen man gëwuma feebar bi man dama jàpp sama gémmi gëwuma feebar bi feebar amul ay politique waaye politique boo xam ne feebar boo xam ne mu ngi ci àddina di rey ay milliers ay milliers ay milliers nga nga koy dégg chaque jour loolu du caaxaan ñu tëj kaaba gi tëj madinatul munawar tëj tëj faas tëj tiawoon tëj tëj ba fuuta tëj jàkk yi ci ak jumaa yi loolu dafee mos a am lu du dëgg du sax de te ñu ñuy wax dee nañu ñu ñuy wax dee nañu senegal da wax ne ki ñu ñuy wax dee nañ amul waaye gis nga nit dafa war a liggéeyee xelam dëgg la am na yoo xam ne dañ ci ànd am yoo xam ne dañu ci dañ ci ànd xëy na nag mbir dina am ñu profito ci ñun jàngalekat alxuraan yi nga jëw su jóge seen dëkk say bokk jox la ay taalibe nga indi leen si fii ci Dakar di leen jàngal ñuy yelwaan guddi ak bëccëg ci mbedd yàlla dogal feebar bu mel ni am li gënoon rafet sax balaa ñu la koy wax nga ne ah jàppale leen ma man dama yaakaar loolu la ñuy wax jàppale leen ma ñii ma dolloo leen ci seen waajur ba lii paase loolu mooy dégg loolu may dégg nañ leen jëlloo parce que responsabilité dafa dafa dafa dafa rëy te ku ci dee rek walla nga am problème yaa yaay yaa yaa yaa yaa yaa gàddu responsabilité bi su feebar bi jeex nga dem jëliwaat leen mais nag bëggoo leen del delloo wut ay prétexte dañuy xeex lislaam dañuy kiilee déedéet nañ leen delloo man dama ci ànd nañ leen delloo ci seeni waajur ñu protéger protéger leen ba feebar bi jeex ñu jëliwaat leen alquran du fa mës a jóg jàngale du fi mujj jóg mës jóg waaye comme que dégg nañu nañu dajale euh, ay ndimbal ak yéen di ko yox jox ci yi ndimbal bi nga kii sa sa xel yépp nga jël ko ci def ko ci ndimbal yi nga bàyyi responsabilité bi la bi bi bi tegu ci sa loos ndimbal yi moo tax yow nga dajale leen ci kii parce que dajale dajaloo la ñuy la ñuy bañ feebar bi loolu lay bañ te soo leen kii ñu ngi dajaloo foofu te seen hygiène ak lépp mënoo ko toppatoo du mu doo mënoo leen delloo ci seeni waajur ba affaire bi jeex mais danga nga bëgg téye leen foofu ndax ndimbal yi di ñëw di ñëw di ñëw ci yow ndimbal bii soxla wuñ ko. ñàkk pexe la nag ngeen bàyyi ñu dem la seen kii waaye feebar bi lu am la keroog bi ñu waxee nañ ubbi moske yi ak waaye dangay xam ne lii pression la waaye parewuñ pour uddi ubbi jumaa yi parce que xam nga lu tax li taxoon ñu tëj jàkk yi mu ngi yokk nga ne nañ ubbi jàkk yi am na lu xew su doon dafa wàññeeku sax ñu ne dafa wàññeeku moo tax nañu ubbi jàkk yi waaye mu yokk nga ne nañ ubbi jàkk yi am na lu xew moo tax suñu kilifa diini dama joxe exemple Serigne euh, Babacar si Mansour xalifa général Tijaan moom dafa wax ne lépp lu aju ci moom li mu ilif walla ñu aju ci moom bu ñu ubbi parce li taxoon ñu tëj jóge gu fi man loolu laa d'accord man laa d'accord man sama xel musul daal ci nañu ubbi d'accorduma ci ñi wax ne nañ ubbi pourquoi dem jàkk day day day farat dem jàkk du farat dem ju ngëneelu mboola nga fay wuuti waaye su fekkee ne da ngay dem foofu du loru walla di loree waaye waaye te nga julli sa kër jumaa ji mooy farata waxoon naa ko jumaa ji mooy farat te jumaa itam su ngànta amee ju day jumaa de lay wàcc kon lu tax nit ñi di te ñuy coow yëpp nañ ubbi jumaa yi dañuy xeex lislaam soo ubbee jàkk yi sax du ñooñ ñooñ du ñëw sax ñooñ duñ nañu takk masque yi sorante yi raxas loxo yi def ci gel yi moytu bu baax te ñaan yàlla ñaan yàlla am musu am su fekkee ci Sénégal kese la am ñu ne def dañuy politique du Mali kese wala France kese wala kii waaye loo dafa lëmbe bi ñëpp ñëpp amul amul exception nga ne amul seetaatal sa mun nga wax ni ndimbal yi ñuy li ñuy wax mun nañ ko politiser xaalis yi ci génn mun nañ ko politiser loolu moom mun nañ ko politiser waaye feebar bi moo amul man d'accord mu am am na am na kon su ko defee ñu ànd ñu ñëpp ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu teggil ñu feebar bi ñaan yàlla yàlla nag ne adduuni astajib lakum woow leen ma mu wuyu leen isa saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa isa daani waaye nag fukk yi ibrahim ibn adham waxoon ñu ne su fekkee ne yooyu ngi ci mu ngi ci yéen di ngeen ñaan yàlla ba sonn du leen du leen wuyu hmm? dafa waxoon ne araftumullah walam tu addu haqqahu xam ngeen yalla ba pare te du ngeen jox yalla akam ben mune qara'tumul quran walam ta'malu bi da ngeen jang al alquran guddek beccik te du ngeen jefe li nek ci alquran manam da ngeen ko jang ni rek li cheikh won jang rek di gëna torox rek di jang rek di gëna torox mais nah, alquran ling ci jang dang koy appliquer mandul da yalla bëgg na ku mandu nga mandu yalla neen ba satch aram na nga bayyi satch moy aram na nga bayyi mo lool moy jang li nga jang di ko té ma maa ngi gis ni yéen ngi jàng alquran te wu leen ko su ngeen ñaané yalla day lank mune iddaaytum xubba nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taraktum sunna mu ne ngi yéen ngi woote bëgg ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bàyyi ngeen sunnaam hmm? mu ne iddaaytum adaawata sheytaan wa ataatumuhu wa waafaqtumuhu woote ngeen ne kat da ngeen noonu seytaan da ngeen bañ seytaan te yéen a ngi topp seetaan ngi di dëppook moom ci lépp lu mu bëgg hmm? su ngeen ñaane yàlla day làng mu ne akaltum nicmatallahi walam tu addu sukraha yéen a ngi lekk xéewal yàlla guddeeg bëccëg te joxe santu leen yàlla keneen ngeen di sant wallahi ibn adham walla waroon na na nekk fii ci suñu réew mi ba dégg li ñuy wax xéewal yi kañ lañuy sant doxu xam ngeen li may wax du noonu mu ne itam euh, wax ngeen ni wax ngeen ni ajan dégg la hmm? te préparé wu leen ko nee ngeen safara dëgg la te ragalu leen ko ah beneen bi dafantum maawutaakum walam ta taatabiru bi bi suul ngeen seeni néew ba pare te taxul ngeen am ci xalaat am ci jàngat loolu jikko yooyu su fekkee ne mu ngi ci xeet wa suñu ñaanee yàlla guddeeg bëccëg yàlla du wuyu mus nañu am dëj ku ñuy wax xasanul bashari basari radiallahu anhu su ma juumul defe naa moom la ñu ne ko léegi de suuli nañu ni ba pare dañoo bëggoon nga waar nit ñi mu ne leen ah waaraate xaj na fi waaraate xaj na fi mu ni haaza usuurukum wa haazihi quburukum li seeni étage la ci ngeen dëkk wàcc ngeen ko foofu lé wàcc ngeen étage yi léegi dem ci armeel yi te seen mbokk ngeen fa yóbbu woon te xam ngeen foofu foofu ngeen jëm ma yaakaar ne waaraate xaju fi loolu su leen waarul ba léegi kon waarate xaju fi kon bu yebak ñu bàkkoore muy ñun ñun daal dañuy def àddina def ko bërëbu ngan bërëbu dëkkuwaay te àddina du dëkkuwaay xaaji malik radiallahu anhu wax na ne ayuhal baani mahalla dayaafatin أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب يومي دي تبخ تي بربو gat ñu gane si fi commencé tabax lu ci sa yoon yow mii di tabax nag ci bérébu ngan alam taalam xanaa xam nga àndal jalaa léegi nga war a gontu gontu jege si na léegi cinq heures jot te da war a gontu ma fii dañ fi jaar ne dëkkuñu fi su ko defee nag li sama sëriñ waxoon Thierno mbaay waaw ayyadahu llahu wa nasarahu yal na yàlla guddal fanam boroom xam-xam aalim kulli fan macha allah wari on aalimun wari on karimul axlaaq moom Ceerno Mbaay mu ne ma Omar gis nga ñun ku ci jógee Fuuta ku ci jóge Fuuta da ngay indi benn saak bu ndaw walla ëmb soo fi nekkee ba commencé liggéey nga wut terrain ba mu yàgg nga tabax ko hmm, dëkk ci ba mu yàgg nga jënd beneen kër bu yàgg nga gën a jë su la yàlla mënee gan nga ñu ne waaw soo amoon kër yombal di dina baax am na kër gu ñu jaay fi nga dem jëndi almadi ngi jaay ñu ngi jaay foofu nga dem jëndi jënd kër jënd kër ay say bokk ñoom ñoo la waaye kër kër gi nekk fuuta kër cosaan la tey nga tabax ko heure boo fa demee gàmm wala demee tabaski wala yu mel noonu wala ziyaar nga am foo daal ay kër nga dem tabaxi mu ne ñun nag am nañu fulla keroog bi mu wax damay réew ba sonn mu ne ñun nag am nañu fulla gis nga soo dee duñ la yóbbu ci kër almadi gi duñ la yóbbu bu caaroj bi bu ñu yóbbu ba fuuta bi kër gi nga sàggane woon foofu lañ lay yóbbu mooy ban bàmmeel bi génn ci étage boo xam ne dañ ko marba ba ci kaw ba ci suuf salon yi suñ la waxul duggal ñemewoo dugg ndax mo moquette yi xam nga ne ñu génne la foofu di la duggal ci pax moo xam ne motul un mètre loolu sax kii ma ñaata la yéen xam ngeen pax pax pax mi ñu gasal néew nii lay toll nee la ci yoor sa lal suuf la côté yi nga doon teg ay canapé canapé ay njeganaay ay yooyu suuf lañ fa def ah ñi njege naa yàlla njeganaay indi leen ma njeganaay bu nooy bi bii dafa xaw ñu indi njege naa yàlla suuf doñ jo suuf ñu njeganaay la mais fii dafa poussière ah dafa ñu ne moom ngay lal moom ngay sàngoo tey ku nekk nag na waajal kër googu ku nekk na waajal kër googu kër googu am na solo te foofu nag foofu bëggul bëggul feret ok bëggul bëggul bëggul ak accompagne feret la nangu hmm? da nga ko ji da nga ko da ko jiital foofu da def bu dee sarax bu dee jëf ju baax nga jiital ko foofu balaa nga fay dem sooy dem moom sooy dem doo yóbbaale dara gis nga ni nga ni nga dikkee woon nekk liir amoo dara takkoo dara li takkoon ci yow sax dañ ko raxas ba mu set noonu nga ñibbe sooy ñibbi dañ lay sàng sàng la ba pare yeew la ba nga nengoon sama benn xarit dafa wax ne man daal suñ ne ajaan neex na man daal nañ ma bàyyi bàyyi fi ba ci kan ma ne ko lu tax mu nekk dëkk boo xam ne dafa neex te suñ lay dem suñu la fa yóbbu dañ lañ lay yeew hmm? mooy tàkk yi ñuy dàkk hmm? boobu ah voyage boo xam ne sooy dem lu mu neex neex dañ lay tàkk yeew loxo yi yeew tànk yi bàyyi bu saaxu neen ni ñuy defal ni ñuy def néew jox jébbal ko yàlla kuñ la ko kuñ la defaloon sa noon nga jëkk ko tàkk loxo yi tàkk loxo yi tàkk tànk yi on yàlla mu ne kuñ ko defaloon sa noon sax nga jëkk ko kon fa tabarakallahu ah dellu rek di sant di sant bu baax baax baax baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ñaan yàlla nag ah xam naa mu profité ci suñu liggéey jumaa ji fii ñu toog ni jumaa la te R plus 1 la ñu ngi ci kuulaas ci kaw soxla nañ ndimbal nag am nañu place boo xam ne terrain boo xam ne nii soxla nañ fa morgue soxla nañ fa ay jàppukaay ak ay toilettes jubloo guñ ci sax kooku xam nga ne soxla na ndimbal képp koo xam ne seetaan nga ñu wala dégg nga dégguñu wala nga romb fi te xam xam xamuñu te nga bëgg defal yàlla bu yebo rek nga gaare sa oto nga laajte waa jàkk ji nga def si sa participation dem sa yoon loolu soxlawul sax ñu lay xam waaye yàlla xam na su ko defee euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Assalamu alaikum wa تعالى وبركاته إلى اللقاء <laughs> وشكرا <laughs>